am na nag ñuy yi nga xam ne Adama Barrow bari na fa doole lool. sa termini yalon ko président Barrow sembo soto je ko ooyee independent NPP ka foy amul fenn amul fenn luwa nangu ko xel nangu ko te kenn waru koo def bon nag ministre ko woto naa xamal indépendant yi benn affaire boo xam ne xamuñ ko fona indépendant buñ la wootelee ni carte di la yàlla tere tere haatu nga gagné yow indépendant bi alaman taggala o ta loi mayul la nga join NPP loi mais so yena kafu warona NPP soo buggee join NPP loi li mu wax ni la fa kafu eh la ñu dem ba élection ci turi NPP nga mun a nekk député NPP bon nag nit ñi na ngeen bàyyi seen xel indépendant yi ñoo gën a bon UDP ngeen moytu leen yàq parti lañ fi nekkee yàq élection di réew mi lañ fi nekkee na ngeen góorgóorlu takkaayu ngeen xeex leen. bokkuñ ci ñun. yàq moo leen tax a jóg. dégguñ ndigali parti. seen intérêt lañ toppa bon nag. ñoom ñoo yëkkati guerre da jubal ko suñ kaw nañ ngem bu xeex ak ñoom ñu pare suñ mbor muy samp mu gañ